Jacob Baldé Boy Diobass. Boy Diobass wàcc na loxo yi. di nga déglu. ndeke café gi baax na ci kafe café gi ndeke de baax na ci de. café Touba gi Touba Touwoo. café Touwoo lañ war a wax ci kaw Touwoo. Touwoo ci kaw. <laughs> Boy Diobass dagg am na lu xool ci gem bi ci ginnaaw. ba takkaat ko. Jacob Baldé mi ngi jël combat bi en main waaw yaa ngi koy jël en main nag baax na. Boy Jobaas nee bu diib yenn saa yi nga defe ne kenn day dem jël sa moroom Boy Jobaas dagg na léewtoo bi yóbbu na ko à l'usure lii mooy mooy match Égypte. Ah.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 bëri leen ma nekk ci kafe gi sonn naa trop wax ji métti na trop. Jacob jàpp na loxo day joor. Boy Jobaas jàpp na. laa ilaaha illallaah Jacob tey daj nga de. aka moo yàgg. Boy Jobaas. ah def na ko yëfi Égypte waaye prolongation. à l'usure bëtt na ko Boy Diobass ndaanaan la ndaanaan la barki sëñ bi ndaanaan la Jacob jàpp na loxo gauche Boy Diobass loxo ndeyjoor gis nga fi mu teg bopp bi daga ndengeeñ daa bëgg mu siggi mais du siggi daa bëgg mu siggi te loxo Boy Diobass mi ngi ci biir loxo Jacob Baldé mi ngi ci biti et puis mu jël bopp bi teg ko ci épaule bi e bët bët voilà génn na loxo bi baaxul woon Boy Diobass ni ngay joxe sa wet gi gauche neexuma Jacob ba nga koy jàpp na loxo ci ginnaaw wax naa li ngay def neexuma wax naa loxo bi wetu goos bi ngay joxe neexuma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 côté gauche bi bi mu ko joxoon baaxul.